bu saf-saf ñoo yekk leen leen toog leen ñu waxtaan yi ñoo toog mu am nag de et cetera ñeneen ñeneen ñi waaw man damay laajte rek waaw kuy luwee néeg fan lay jaar ba dàq borom kër damay laajte parce que yenn ñi ñu commencé bëgg ñu roo yebel yeewi askan wi ngeen jéggal ma ci kàddu yi du pulaayee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

te ñoom ñoo dugal seen charte Yewwi Askan Wi que Khalifa dafa nar bokk par force justice daal leen di débouté ba ñuy wotee loi bi assemblée nationale ñoom ñépp jóg génn ñépp a gedd dañu gedd assemblée ñëwaat fi geddaat fi xaleel mooy gedd ab cuune mooy gedd kuy politique day fekkee di dox di wax politique gedd amul ci politique xalé sax bay nañ maintenant di gedd xalé sax bay nañ gedd kon nak mbokk yi man dal baña guddal ñom big ci commune jeppal dexle premier adjoint bu ñu wote woon ci premier bureau municipal mi ngi ni tok mi tuddu ibrahima ndiaye bokk ci taxawu sénégal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

comme ci ñom dafa amone ñu jàpp ni nekk du leader politique nañ ko déggé noonu man naa ko wax té noonu laa ko waxee maa ngi leen di gërëm leen sant mom nak su jappé ni parce que ñun bokkuñu gis-gis ak ñom ñom lu leen di fi indi moy xuloo ak ñun ak xeex ak ñun dama ne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

il benn conseil la am conseil municipal ou sans conseil benn lañ fa mais ils sont membres du bureau parce que ñom tamit nekkoon nañ membre du premier bureau mën naa continuer liimal nii ku ñuy Madina Adital sax ci premier bureau bi moom moo nekkoon président commission environnement mais nag jigéen bu ñu ne comme am nga xam-xam macha allah nga liggéey kaay nga dugg ak ci bureau bi liggéey moom mu bokk ci parti Moustapha Guirassy bu sept